bismillahi irrahmaani irrahim ñu ngi ci njàngalem sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawoo sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawoo julli gi mu julli woon ci kaw géej gi tisbaar la ak takkusaan bi mu jullee tisbaar ñaari rakka ci kaw ndox mi ca mujjug muxtaar ma daa noddu ca kaw ndox ma ni teg mel ni kuy xaar kuy julli si daldi julliwaat ñaari rakka doore yéeg ca gaar ga wér na am na ñuy wax ni bi muy yéeg daa suufe ba tolloog moom mu dugg walaw alam am na ku masa wax sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo dama gis mbindeef ñu mel ni ku jëm ci kàmbug sawara ba noppi di fecc xanaa njàccaar da leen a war a yërëm waaye waru leen a reetaan sëriñ bi ni ko woppi dee ku mu nekk ci sa kanam ak sukuraat ak laajtew bàmmeel ak taxawaayu bis penc ak jéggi siraat ngay xàqtaay siiw na sëriñ tuuba xaadalawu la maxtaaloo ne doomu adama ju nekk wurus la bu ñu ko gasee ba génne ko dañu ko yóbbu ca tëgg ba mu defar ko ba ñu man ko waje waye bu ñu ko deful noonu ku ko gis te xamul wurus du xam lu mu doon siiw na wala wér na lool sëriñ moor kumbakan radiallahu taala anhu daa ma sa yónni ci sëriñ tuuba xaadalawu la maxtaaloo ku ñuy wax muudu ba radiallahu taala anhu ni ko boo demee ne ko mor kumba nee na da bëgg ñu musal ko ci dee ñu do ko wat wat moy diri mo ki ñoñam boba day jamono pestu ba ñuy sul ñu bari ci menn pax di leen diri ci boom serigne bi ni ko demal kër diw tuddu aw ba suba ba mu xeye serigne touba xaadala wala makhtar lo wo ko bi mi ñew di daw bi mu agsee daw bi mu doon daw taxna li serigne bi di wax ko te ñi mi wuta wax serigne bi dégguma ko te ñi mu wuta dellu sëriñ bi ni ko fii ku fi ñëw war ngaa xam ni nopp dégg lay jariñ ba buñ la waxee nga dégg xel itam war ngaa xam ni jàpp lay jariñ ba buñ la waxee nga jàpp ko làmmiñ itam nettali lay jariñ ba boo demee nga man koo nettali nee na bi ko sëriñ tuuba xaadaloo la wax maxtaaraloo waxee lii daa mel ni ku ñu muuroon dara muri ko mu ni ko fi mu ne loo ma waxati ma dégg ko serigne touba khade lo law makhtar lo jël kalaga tek ci gimin gi niko bo demé né ko na wax jami nañu muslu ci ngam gu rekiku ndax ko fa toalé ak ngam buñu ko sangul sanguñu ko julé wuñu ko du ko wañi dara ku faté waliwul ak ngam buñu ko sangé sang ko julé ko yit du ko jariñ dara siwna serigne touba khade lo law makhtar lo néna bi mu jugé jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala yoonu wacce jëm dëngul alam amutu ñalla mooy yoon wu dëng ba ma ca awee ñaari goblaan yi rek laa masa dog seen tànk ca yoon wa goblan kilifa xayna muy cheikhu abdou khadir gaylaaniyu radiallahu taala anu ak cheikh ahmadu tijaaniyu radiallahu taala anu bi may dem ba ni dan ak ñoom ñu ne ma jàmbaar nga lool fii nu jëm ma ni dem taxawal nu joxale ci li nu yor mani leen wax ngeen dëgg waaye boole leen ma ki leen jox li ngeen yor ñu ni ma li tax ñu lay wax lii ñetti kuréel dafee nekk yoo xam ni boo jot moo ëpp doole ba ko njëkk kuréel bi ngay njëkk a jot sunu borom jox na leen doole jox na leen ngànnaay jox leen ndigal yitam ni leen bu leen kenn weesu aksi kuréelum ñaareel bi boo fa àggee wax ni kurel ba nga wessu katan gu am am ñu ñaaram doole juñu am am ñu ñaaram ngànnaay yu ñu am am ñu ñaaram ta dañu ñoo digal bu kenn jall bo agge ci kuréelub ñettel ba danañ la wax ni fo mëna jaar ba aksi, na nga xamni fi moy yamu yamukaay bi ñooñee nga wessu doole juñu am wala sañ-sañ wala ngannaay wala ndigal am nañu may dem ba sa ci bu ñëk ba ñu ne ma fi nga ñëw ñun ñi nga fi fekk dañu ñoo jox doole jox nu ngànnaay jox ñu ndigal ni nu bu leen kenn jàll fekk na ka leen jox doole jox na ma doole jox na ma ngànnaay jox na ma sañ-sañ ni ma bu la kenn tey ñëw ma denc sama ngànnaay ak sama sañ-sañ ak sama doole ak sama ndigal dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin ba yàgg ñu ni ma ñu ni mënuñu laa tee dem waaye kuréel ba ca kanam lañuy xool noo koy jàlle bi ma ñëwee ci kuréelum ñaareel bi ñu ni ma xamuñu foo jaar ba dikk waaye fii mooy yamukaay bi ndax am nañu doole joo xam ni ñarte na ña nga weesu ak ngànnaay yi ak ndigal fekk na ka leen jox doole jox na ma ngànnaay jox ma doole jox ma sañ-sañ ni ma bu la kenn te agsi ma denc lépp dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin ba yàgg ñu ni ma xamunu nun lay def waaye kuréel ba ca sa kanam moom lanu xamul foo koy jaar bi ma ñëwee ci kuréelum ñetteel ba ñu ni ma jàmbaar nga lool ndax fi nga jaar ba agsi fii waaye fii mooy yamukaay bi fii fekk nga fi doole joo xam ni ñett te na ña nga romb ak ngànnaay ak sañ-sañ ak ndigal waaye ka leen jox loolu jox na ma doole jox ma ngànnaay jox ma sañ-sañ ak ndigal ni ma bula kenn tee agsi ma ci yépp dem ak ñoom ci teggin dem ak ñoom ci teggin dem ak ñoom ci teggin ba mujj nii ma kenn mënu laatee jàll may dem di dem di dem ba sama kàttan jeex sama man-man jeex ma sëx ci géej goo xam ni kenn mënu koo xuus kenn mënu koo feey te kama soxla ma nga ca wàllaa foofee laa toog janoog yonente bi salallahu taala alayhi bi wa di ko joor alxuraan di ko joor alxuraan di ko joor alxuraan ba ni antal karimu annal khadimu dahran udimu fika sana'i diko ko wax diko ko wax ba mujj mu fab seelu wurus te mooy raas bi ko sama digg ak moom ni ma jaaral foo fii te ñëw ma dimbali la bi ma agsee mu ni ma pay bii pay mooy bërëb mbooleem góor yàlla yi yep, jiitu lañu xante wo lañu nombay borom yi la ko te maa koy joxe wax ma ndomba goo bëgg ma takkal la ko ndomba mooy maqaama wala daraja ma ni ko soxlawuma genn ndomba mu ni ma loo soxla mu ne ma ni ko tool bii di lislaam sunu boroom digal la nga moom ko laa bëgg nga def ma may jawrin ma laa bëgg nga def ma may jawrin gi bala koo kenn ñaaj ñaaj mooy bët na jaar ci man mu ni ma bis ni tey may naa la ko siiw na walla wér na malaktuhu qatta yadi sinina wa qada lil mafruda wal masnuna baydu wi da nu rog waxtan wi wala a'lam serigne touba qada lahu allah makhtar lahu masna am ñu mu jox aw ñam ni len wo len babakar jaxate mu bokk ak yeen siwna amna ci talube yi ñu doon feñal seen man man ci batim serigne touba qada lahu allah makhtar lahu ni len bayi len seen pomi siwna sëriñ Tuubaa xaada lawolaw maxtaaloo mas naa woote ni li ma leen di wooye mooy bis booba sunu borom subhaanahu wa taala tudd ci alxuraan ba tudd ko junni yoon yu manki benn bis boobee la muy rëy rëy saa borom benn laaj la ma fay laaj ma tontu ko mu dellu ma tontu ko daje ba jeex dama naan ahmadu mbakke diggante ba nga nekkee njaareem ginnaaw bi nga jugee ca tukki ba ci loo nekkoon mu ni ko maa nga woon ci def say ndigal bàyyi say tere ñi nekkoon fi man tey wéye sama ndigal ña nga doon def sama say ndigal di bàyyi say tere ña ma sori woon te fa ñu nekk sama ndigal lañu fay wéye ña nga doon def li ngay digle di bàyyi li ngay tere bi ma fi bàyyikoo itam bind naa li ngay digle bind naa li ngay tere bàyyi fi ñi ñëw sama ginnaaw te bu ñu ma fi fekkoon ànd ak man ba ñu yëree mbind ma dañoo def seen hitte jépp ci def ndigal yi bàyyi tere yi sunu borom ni udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun aswajukum joji li muy firi moy ñi la tollanti won ci def samay ndigal bayyi samay tere andal ak ñoom duggu aljana te kenn du leen set kero ku fa des la la fa texa des ya ko def werna na bun fa des waalaaniyal abraru fi ukhraya wan xaadali bilantehan xiraaya daa nuroog waxtaan wi moo tax mu bind ko wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuba mu juróom ñaar fukk bi ak juróom ñeent sëriñ tuba xaada lahoo law maxtaar lahoo am na ku mu mosa wax ci moom manes na koo mag waaye ku ko mag moo la gën siiw na sëriñ tuba xaada lahoo law maxtaar lahoo mas naa wax xam ngeen luy murit saareex ñu ne ko xanaa mooy kuy def la ko ab sëriñam digal di bàyyi la ma koy tere sëriñ bi ni leen murit saadix day ñàkk doon saadix ci boroomam ba noppi door a ñëw ci sëriñam bi muy topp ni gees sëriñ mat lamin gay radiallahu taala anu ni ko ahmadu buñ la ni woon bul julleeti nooy def mu ni ko te ngeen di julli sëriñ bi ni ko waaw mu ni ko du tee nuy julli sëriñ tuuba xaada lahu la maxtaar waxat waxaat ko ko mu ni ko te du ngeen julli sëriñ bi ni ko waaw mu ni ko te yàlla mi ko digle woon digle ko serigne touba xaada lahu la muxtaar lahu ni ko waaw mu ko du tey ñuy julli serigne bi jox ko loxo ni ko may yahdi llahu fa huwa almuhtadi siiw na ñu ci njangalem juroom ñak bi ak benn serigne touba xaada lahu la muxtaar lahu am na ku mu massa jox ab keul ni ko keul bi mak samam xujja maram ture radiallahu taala anu bokk nañ ci bataay reer ci geejgi gi nga ko jël diko barkelo siwna na ki muy wax bi muy def loolu faatu na wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalahoo wallahu maxtaalahoo bi mu nekkee jolof am na bis njël la jeex sëriñ Mataar Penda Jang radiallahu taala anu wax ko ko sëriñ bi ni nañu ma wool ku sawar ku mel ni Màlle Sekk radiallahu taala anu ak ku mën a bind ku mel ni Mafatim Loo radiallahu taala anu bi mu ñëwee daal di bind bataaxal bu jëm ci maam Thierno radiyallahu taala anu Serigne Malle yóbbu ko tisbaar la jóge jolof ci guddi gi la yegg si Mbàkke Kajoor siiw na wala wér na yàlla nañu taqoo liggéeyal sëriñ bi wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuuba xaada lahu lahu maxtaar lahu sëriñ Tuuba xaada lahu lahu maxtaar lahu mas naa wax ci ñi ñuy tooñ ni ñi ñi koy jiiñ ñepp maase wuñu doon ko ñi ko doon it li ñu leen jiñ lépp maase wuñu def ko siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo bi mu nekkee gànnaar am na ku mu masa wax boo demee wool ma sa boo demee ak moom muy si mu ñëw mu daldi ñëw ànd ak baayam mu yor ab bataaxal bu ñu ko yóbbante ci sëriñ tuuba xaada la wala maxtaar la ko sëriñ bi jàngee ni ndaxam yéeg kat bu nekk mooy xam car ba ko xàttan mu ni ca colam toog colam mooy wadd xëy na ni ko noo tudd mu ni ko tafsir muusa daraame sëriñ tuuba xaada lahoo law maxta loo ni ko tafsiri ni ko tafsir ji lu ko ci handi mu ni ko mën a firi alxuraan lool sëriñ bi ubbi kaamil ni ko randu sil te baaxe ñu ci alif gii tiim baagi laa bëgg nga njëkk ma wu baaxe mu ni ko yàllaa xam tàmbuli di firi ba ca alif laam miim mu ni yàllaa xam sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo ni ko tabbiwul sunu bopp de daal di ub kaamil bi ni ko li ci des lépp yàllaa xam toogal nu dindi li nga xamoon lépp te jàngal la fatiha ak ina ansalnaahu ak li fi xuraysin nga di ko jullee ba ñu noppi ci yow mu am fa ñaari at sëriñ bi yewi ko siiw na ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo bu juróom ñett fukk bi ak juróom sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na ku sollu lu wax lii sunu boroom jéggal ko te li feeg ma nga koy sol du ko bindal bàkkaar mi ngi nii alhamdulillahi allasi kasaani ma uwaari bihi awrati wa atajammalu bihi fi xayaati min gayri xawlin minni wala quwatin allahumma inni as'aluka xayrahu wa khayra ma sunia lahu siwna na sëriñ tuuba lahu law makhtar lahu dani digle koy def albaaqiyaatu salihat mu ci bolé lii bala mo tambali danan saa borom fas na dak lepp lo loo xam ni xol foboon na ko jeme ko ci yaw ci matadi te mu dakku dakku na faawu te du sax dakku na njëkkug mindeef dakku na teewug mindeef dakku na fàddug mindeef daquna dem daquna tay daquna tey subhanallahi fanweer ak ñatt sa borom fasiyene nama saxal lepp lo xamni xol fa bon nako. ko jëme ko ci yaw ci mat te mu sax saxna faawu te du daqku saxna ñeeku mindeef saxna teewu mindeef saxna faddu mindeef saxna sax saxna tay saxna alhamdullilah fan alhamdulillahi fanweer ak ñett loolu taxul ma jox ko la yàlla moom ndax xëpp na ko fopp te mësta den di ko hëpp hëpp na ko njëkkug mindeef hëpp na ko teewug mindeef hëpp na ko fàddug mindeef hëpp na ko démb hëpp na ko tey hëpp na ko ëllëg allahu akbar fanweer ak ñett la yelloog moom ci lu mindeef mën a tudd moo di baatub laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul xamdu wa huwa ala kulli shay'in khadir werna su ko defee lii mooy gatalu nettali bi waaye dana am yeneen wax yu ñu ci boole naan daa amon ku serign bi lajoon noy defé al baqiyat waaye lu ma ci xamaat dana ko bindaan muy beneen nettali insha allahu taala wala alam ñu ci ñàngalem sëriñ touba juroom ñett fukk bi ak juroom ñaar sëriñ tuuba xaada la wala maxtaloo nee na fu fi waay nekk ci yéen na def jàkk lislaam lu lislaam bëgg mu bëgg ko lu lislaam bañ mu bañ ko siiw na wa man yabtaqi xayra lislaami diina falan yuqbala minhu wallahu a'lam